ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk internet yi nga xamante ne yéen ñuy suivre à travers Salam Vision ñi ngi am mbégte tey bu baax a baax li koy sabab mooy fi ñu dellu siwaat seet siwaat kenn koo xam ne wax dëgg yàlla dootuñu ko présenté àdduna ndax buñ ne soxna Kya Aidara Mboup mu Serigne Babacar radiyallahu taala anhu di ko ñaanal bu baax a baax moom itam fa mu tëdd ca barsax sax na yàlla sama borom dolli ko ay leer macha allah rabbi ki nga xamante ni mooy Serigne Maysa Mboup di rakkam ñoom ñaar bokk benn waajur bu góor ak bu jigéen moom itam bi mu fi dëddoo moom mii mu ñëw uutu ko ci liggéey bi macha allah rabbi fa mu nekkoon daan fa liggéey itam mu ñëw féeti siwaat fa ba mboolem ñi nga xam ne soxna Kya Aidara mi ngi daan jëflante ak tey jii moom mi mu di jëflante ak ñoom tey moom lañ seet siwaat bëgg waxtaane waat ak moom lenn ci xam-xam waaye itam lenn ci tolluwaayu jamono ak yëngu-yëngu yi ndax saa su ne gis nañ ni xew-xew bu mën a am ci réew bi mi ngi génn di jàppale askan wi di leen digal ay sarax waaye di leen moytuloo itam ci lu bare bare bare ñu seet si waat ko rek gannaaw bi nga xamante ni génn nañ ci tabaski bi barki démb wanjaay wax dëgg yàlla baaluwaat ak sénégalais yëpp baal ñëpp ak ñaan ñëpp ñëpp jéggal ñu gannaaw yàlla mu ñu si ko moom it jël si waat ci moom message boo xamante ni mooy gannaaw bi tabaski gi jàllee waaye itam jëlaal itam déclaration bi nga xamante ni kii di le président Macky Sall son excellence def na ko démb macha allah rabbi ak lan lay digalaat askanu Sénégal Serigne Meissa ñi ngi lay nuyu ñi ngi bu baax a baax di la ndokkeel di la balu ak itam naan lan déwénati macha allah rabbi. Watala hmm, bonsoir. Hmm, Comment va la journée ça va bien. Ça va alhamdulilah merci. je salue toutes les populations sénégalaises. Hmm, je salue ma mère et mon père. Et je salue toute la famille aussi. Mm -hmm. Et ma grand-sœur mm mon père aussi. Dieu a aussi, mon aussi est décédé. Paix à de elle aussi. euh, tout ce que j'ai fait, mm-hmm. personne ne peut rien faire. Mm-hmm. Euh, je dis à tout le monde, entier, mm-hmm. et Dieu fait qu'on a bien fêté, Alhamdoulilah. Je pardonne à tout le monde et je veux que tout le monde n'a qu'à me pardonner. Que Dieu amène la paix au Mali et toute au Sénégal aussi. Inch'Allah. mais c'est beau, vraiment, on est, on et on est ravis aussi de revenir aussi chez vous. macha allah xanaa di la wax rek wax dëgg yàlla euh, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci suñu bàjjen bi génn àdduna moom itam di ko ñaanal di ñaanal mboolem waaye daawlu yi nga xamante ni jiitu ji nañ yal yàlla sama borom yërëm leen euh, euh, leeral seen bàmmeel wax dëgg yàlla te xaar leen àjjana ci dara ji yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam. bu baax a baax askanu Sénégal gannaaw bi julli gi jàllee. tey jii ñu gis tabaski gi wax dëgg yàlla coow li bëri woon na lool ndax diggante Macky Sall Sonko état bi population bi. bañ naan tabaski gi nangam sangam sangam waaye yàlla mi nga xam ne dara taw ko tam moom moom lépp moom fépp def na nit ñi tabaski ci jàmm ak ba jàll ko macha allah waaye ñu gisi tamit li nit ñi doon tiit le président Macky pour barki dem mu def discours bu am solo boo xamante ni tey ji àdduna yépp kenn ku ci nekk mi ngi am lu mu ciy wax lan nga ñu mën a wax ci loolee tam macha allah rabbi bon lu mun wax ci affaire euh, déclaration boobu. Mm-hmm. loolu laa wax ma ne soo bëggu Sénégal bi dina toog bu baax mm-hmm. soo bëggu coow dina jeex si Sénégal mm-hmm. kilifa diine kese mun naa def loolu wallaahi parce que da xam mm-hmm. soo gis dëkk dafa met kilifa diine kese mun na def dara ci dëkk bi dëgg la quel qu'en soit président dafa am doole kilifa dine mo ëpp doole ñoom yaa comprendre mais ba léegi ma ngi ñaan yàlla rek yàlla indi jàmm Sénégal da nga Sénégal benn jour mm. dinaa nekk Sénégal dina neex trop. wallaay ndeysaan incha allah ci kàttan yàlla mm. da nga xam àdduna. Mm-hmm. su yàlla dafa wax dina benn affaire dina ñëw. Mm-hmm. dina ñëw kenn mënut dara. Mm-hmm. si en comprendre yàlla moo bindi yëpp. surtout yàlla kese mun na régler yëpp. ko defaraan. kenn mun ko defaraan. yàlla kese mun na ko defaraan. donc ñu topp yàlla rek ñu ñaan. coow du arranger dara. xeex du arranger dara. parce que soo coow ba sono su yàlla d'accord. Hmm. du baax. c'est incomprendre hmm. déclaration Macky Sall dafa def. Hmm. dafa def ci boppam. def boppam kenn dafa def ci boppam. parce que lu tax defa def ci boppam yàlla moo ko dugg ci laamin. surtout ko wax. c'est incomprendre parce que yàlla moo bindi. benn jour Macky dina wax wax bi. essayen comprendre dafa ay beneen côté ñoom dafa mere mhm. nee na si Sall warul def lii mhm. dafa ay yeneen côté dafa wax di ñu def baax na mhm. ñu teg yëpp ci loxo yàlla rek essayen comprendre ba moo tax maa président yàlla kese moo ko xam mun na nekk yow dina nekk président mun na nekk man mun na nekk keneen yàlla kese moo tànn nit yàlla kenn mun tànn nit yow soo tànn beneen nit avant jour boobu su kooku dafa dee loo def doo mun a def dara de doo ñu teg yëpp ci loxo yàlla rek mm-hmm. man lu ma bëgg wax rek mm-hmm. ba léegi sénégalais ñu toog ñu waxtaan mm-hmm. waxtaan mu am solo dama bëgg wax Macky Sall tam dina woo waa candidat yëpp waxtaan ak ñoom àdduna am solo dama bëgg tam su fekkee ne mun na bay Sonko dina dem ci élection dina ko bay dina dem ci élection su yàlla nee ne dina nekk président kenn mënul dara su yàlla nee na Sonko du nekk président mhm. ken mënu dara mhm. moom dafa amu audience mhm. bay troisième mandat dama bëgg tam dina xool bay Sonko dem ci élection su fekkee ne dafa bëgg jàmm ci dëkk bi yàlla xam na jàmm dina ñëw su Sonko dafa dem jàmm dina ñëw su Sonko dem tam jàmm dina ñëw parce que yàlla kese moo xam lan moo nekk foofu c'est un comprendre mais ba léegi ñu toog ñu waxtaan tant que communication dara du baax ci Sénégal s'il y a communication y a rien ñu am communication mm-hmm. Macky Sall dafa war a convoquer mm-hmm. population yi mm-hmm. waxtaan ak ñoom Macky Sall war na kilifa diine waxtaan ak ñoom da nga xam soo waxtaan nga xam ban ak ban danga nga war a def ci sa àdduna surtout mais soo bugg wax def benn affaire yo kese chaque jour yaa ci erreur si on comprend bon moo tax même année passée mane affaire présidentielle yi. Mhm. dafa métti. su fekkee ne man kese sama sago. Mhm. bii laa du nekk président. man dinaa wax Sonko bu lu toog ci siège présidentielle. Mhm. billahi tallahi parce que. da nga xam siège présidentielle. dafa tàng. c'est comme safara. parce que de un su Macky Sall dafa dem. dina dem bay ak i problème. surtout parce que lu tax. avant Macky Sall dafa liggéey Ablaye Wade dafa def loolu la moom dafa ko commencé commencé yeneen liggéey mm-hmm. donc moment moom dafa wax dina dimbale sénégalais yi mm-hmm. date boobu dafa passé donc Sonko tam dina ñëw par exemple su Sonko dafa nekk président mm-hmm. moom tam dina commencé liggéey Macky Sall moment moom dina yégal boobu avant jël décision moom bosom dina metti de donc ñu ñaan yàlla rek ku waroon nekk président yàlla indi ko si en comprendre man su fekkee ne man kese sama sago. Mhm. billaay Sonko du nekk président. parce que lu tax mhm. nit nga daw benn affaire moo génnee dina la jàpp. Mhm. si en comprendre affaire présidentielle. billaay tallaay ku ko xam bu baax. doo ko toog ci siège bi. mais da nga su yàlla dafa ko bindi. moom dina nekk président. kenn mënul hmm, dara su yàlla bind tam ne na moom du nekk président hmm, hmm. kenn mënul dara dama bëgg rek ñu jël dogal yàlla rek ñu muñ ñu def jalaw parce que da xam parole en table moo génne coow moo génne dee ñaata nit moo dee dafa bare seen mbokk yi moo ñàkk population yi moo ñàkk ñun moo am coow ñu ci des ñu ci kaso bi ñu ci kaso léegi Tabaski dafa def. Mm-hmm. nit lu bare mi ngi ci kaso. yaa ngi gis mm-hmm. Tabaski dafa def nit yu bare dafa dee. Mm-hmm. nit ku dee léegi soo wax ñoom ñoom du def Tabaski ñoom dina wax du da nga fen. nit ki nekk ci kaso. soo wax ñoom du def Tabaski ci si mbokk seen yaay. ñoom dina wax du dégg mais loolu yëpp yàlla dafa ko bindi ba pare. ki war a def kaso. yàlla bind na ko. ku war a dee. yàlla bind na ko kenn mënu dara. ba moo tax mën na ñu ñaane rek. ñu ñaane rek ñaan kese. Hmm. mun naa diminuer Sénégal. surtout est-ce que comprendre. Hmm. ñu ñaane rek kenn ku ne. Hmm. nga xool sa bopp nga ñaan. bul wax man nekk ma séeréer man mun ma ñaan non non yow mun naa ñaan est-ce que comprendre. soo yeew suba suba teel. soo julli ba pare soo nekk chrétien soo nekk musulman soo nekk lu ne. nga ñaan sa bopp nga ñaan sa dëkk. soo ñaan. yàlla mun na nangu sa ñaan seen comprendre yëre bu yëre bu rëy mm-hmm. du affaire ñaan yëre bu tilim mm-hmm. du affaire ñaan ñaan ci xol la nekk seen comprendre mm-hmm. soo ñaan yàlla mun na jàpp suñu ñaan mais soo soo yeew eh, sunu maam yi tey soo yeew suñu bàjjen wako wax Sénégal moo nekk nii ñoom dina wax yàlla bulu indi ñun mais dafa metti dafa metti maa ngi ñaan Macky ba léegi dina essayé toog waxtaan ak population mm-hmm. parce que danga xam soo waxtaan ak sa population mm-hmm. boobu moo baax parce que mm-hmm. su ma nee nga waxtaan ak sa population doo woon nit yëpp mais chaque jour nga woo au moins benn partisan nga waxtaan ak ñoom chaque nga woo benn partisan nga waxtaan ak ñoom nga xam lan ak lan moo nekk ci dëkk bi soo xam lan ak lan moo nekk ci dëkk bi yow doo sonn keneen du sonn mais bi yëpp entourage Macky Sall moo nekk problème su fekkee ne dama jum ñoom dina ma baal parce que man lu tax ñoom moo nekk problème parce mm-hmm. que soo soo soo nekk dimbale nit mm-hmm. su mu ngi ci erreur mm-hmm. yéen bul xool parce que dafa nekk seen président yow mun na ko conseiller parce que soo nekk ci wetu nit il faut que nga jox ko conseil bu baax bu baax surtout et si en comprendre soo jox conseil bu baax parce que su Macky defa dafa dem du Macky Sall kese de Macky dina dem ak gouvernement yëpp entourage yëpp dina dem parce que du Macky Sall kese dina ñàkk si en comprend donc soo xamul loolu kenn ku ne nga def sa sa sa liggéey mm-hmm. si en comprendre su mag si mag dafa jox yéen xaalis mm-hmm. xaalis bi fu mu war a dugg war na dugg foofu mm-hmm. mais su fekkee ne xaalis du dugg foofu waxtaan du dem ci foofu dina metti bon moo tax chaque jour dafa am problème ci dëkk bi mag sax mënu toog ci pale xam yëpp parce que dafa ma ay nit dafa ko bàyyi pour ay délégation pour ay jeunesse ay délégation pour ay population ay délégation pour fédération mhm. mais su yéen waxtaana ak ñoom mhm. nga juba ak ñoom mhm. nga xam lan ak lan moo nekk ci sa dëkk dëgg-dëgg ñu wax dëgg Sénégal mi ngi métti mi ngi métti trop trop trop trop trop trop trop te warul métti warul métti mais loolu yëpp ñu bàyyi ko ci loxo yàlla rek essayer en comprendre parce que yàlla nee na soo gisi safara mi ngi ñëw nga bàyyi ci sa xel benn jour dina indi ndox sedd essayer en comprendre Mali dafa tàng avant de avant dafa tàng jor jor jor jor jor mais même su jeexul mm-hmm. yàlla mu ngi indi jàmm tuuti tuuti parce que lu tax mm-hmm. chaque yu ñoom mu ngi toog waxtaan mm-hmm. essayer en comprendre chaque jour il faut que nga waxtaan ak sa mbooloo yi soo waxtaan ak sa gouvernement soo waxtaan ak sa population u dem noonu de parce que soo bëgg def si yow kese nit kese munu def liggéey c'est impossible waaw kese munu def liggéey ba léegi maa ngi wax encouragé Sonko mm-hmm. ak songo tam mm-hmm. ba léegi ñu mu ñu dem nang nang mm-hmm. yaa comprendre su fekkee ne yàlla ne ne Sonko dina nekk président dina nekk président su fekkee ne yàlla ne ne du nekk président kenn mënu forcé su yàlla ne ne dafa bëgg def benn affaire kenn mënul su yàlla ne ne Sonko dina nekk président amul benn sëriñ dina tere lool amul benn kilifa dina tere lool yàlla kese mun na tere su yàlla nee ne Sonko du nekk président mm-hmm. amul benn kilifa dina tere loolu mm-hmm. amul benn musulman dina tere loolu yàlla kese mm-hmm. donc ñu ñu xool yàlla rek ñu ñaan yàlla yàlla indi président bu baax jokk ñun loolu rek ñu ñu laaj yaa comprendre waaw macha allah euh, am na solo may sa bopp wax dëgg yàlla ndax ku dégg li nga wax itam wane nga ni fi mu toll wax dëgg yàlla jaam bi moom warul def lu dul rek delloowaat léppam ci suñu borom subhaanahu wa taala waaye wàkkirluwaat tey sabab lu tey jéem waaye li ci des ñu xam ne yàlla moom fi ne lu mën a am rek suñu borom moom moom mooy dogal ndax gannaaw moom mooy aji ci mat nga xam ne moom moom lépp moom fépp moom ñëpp moom rek moo fi nekk kon ñun ñëpp kenn ku ci nekk missionnaire nga am mission booy dox waaye nañu bàyyiwaat xel ni lépp daal suñu borom mooy aji ki nga xamante ni mooy dogal macha allah mu doon lu am solo message bi nga xam ne lancé nga ko au président de la république moom itam wax dëgg ko dégg waaye itam message bi nga lancé itam euh, ci opposition bi tam ñoom itam kenn ku ne dina ko dégg xanaa kay fi ma bëgg ñu jeexale fa rek mooy tey ji mbooleem ñi nga xamante ni ñooy soppee may sa mbubb yi wala ñu doon ay soppee kiyaa wala ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ay ay wëllëri kiyaa la ñu woon tey ji nga nekk ñoom di liggéey ak ñoom dal leen taxawu tey ji fa nga xam ne sa mag yi daan na leen fa taxawu quel sera le message boo xamante ni di ko lancé à travers la population sénégalaise plus particulièrement les amis frères sœurs et patients dëkk soxna Kya Aïdara Mboup bon lu ma bëgg wax ci loolu rek maa ngi nuyu waa sénégalais yëpp mhm. maa ngi nuyu waa autorité yëpp mhm. et puis encore bal eh, dama bëgg lancer benn message encore mhm. ma ngi ñaan Macky Sall dinaa xool waa prison yi. surtout chaque jour maa ngi wax lool ñu nekk ci kaso bi. waaw ñu nekk ci kaso. Mhm. ñu xool su fekkee ne daañu dafa fàtte ñoom. Mhm. ñu xool seen dossier. Mhm. dafa may ay yeneen ñoom dafa nekk coupable dafa am ay yeneen nekku coupable. il faut que ñu xool yooyu itam est-ce que ngi comprendre. bu baax parce que da nga xam kaso dafa metti yàlla xam na dafa metti dama bëgg Macky Sall dina ko xool waa prison yi. et encore maa ngi ñaanee Macky Sall dina xool ay militaire ñoom dafa dee bàyyi seen doom mm-hmm. ay ak jabaram Macky Sall dina xool ñoom tam mm-hmm. maa ngi ñu wax Macky Sall ay gars yi de booy dafa dee mm-hmm. bàyyi ay jëkkëram ay jabaram oba ay booy dafa dee bàyyi ay seeni yaay oba bàyyi booy dafa dee bàyyi seeni mbokk yi dina xool ñoom tam waxtaan ak ñoom chaque jour danga xam ku dee hmm. kenn mënu ko fay mais soo ko souvenir ci ñoom hmm. boobu dina baax ci dëkk bi tam surtout essayer comprendre hmm. bon loolu laa bëggoon ñaan Macky Sall dina def loolu tam et sango sama beneen mes dernier message moo am solo ku xam sa kër mi ngi commencé sen nga defara sa kër année taw bi bi dina yàq lu bare de taw bi dina yàq lu loolu laa bëgg nga nga partagé boobu bu baax a baax nga wax Macky Sall mm-hmm. dina xool ay gouvernement yi mm-hmm. nga wax ay maire yi mm-hmm. nga wax ay chef de quartier kenn ku ne soo xam sa yoon dafa am ay yoon dox nga commencé dindi ay kanivo yi sinon taw dina yàq lu bare bare bare bare ci année bi soo xam sax kër defa commencé seen nga defaral ko taw année taw bi dina metti de pisangoon ngelaw dina yàq lu bare yaa ngi dégg ngelaw mm-hmm. dina yàq lu bare taw dina yàq lu bare. Mm-hmm. su xam ku kenn ku ne soo xam su mi ngi commencé taw. Mm-hmm. bu nu génne sa oto. kenn ku ne soo xam mi ngi commencé taw maa ngi ñaan population ñu sauté compteur yëpp. ñu coupé courant ba taw bi arrêté. sinon moment taw bi. ah papa Talla yow dina ma wax. taw bi. dafa ma yeneen taw du bare. mais dina yàq lu bare. dafa ma ay yeneen taw du ñëw mais ngelaw dina yàq lu bare c'est mm-hmm. comprendre mm-hmm. man maa ngi ñaan sénégalais yëpp mm-hmm. kenn ku ne nga moytu et puis encore deux mille vingt trois bi dernier deux mille vingt trois janvier ba deux mille vingt kenn ku ne nga moytu sa bopp nga dégg oto jàmbur dafa sàcc nga dégg kii dafa dee nga dégg kii dafa rey boppam Hmm. c'est comprendre hmm, hmm. dernier 2023 puis encore kenn ku ne nga moytu sa bopp nit lu bare seen bakkan dina nekk ci yoon yaa ngi comprendre lu ma bëgg ñaan Macky Sall rek loolu rek dina essayer xool loolu loolu rek la bëgg ba léegi dina xool waa prisonnier et puis encore maa ngi ñaan Macky Sall dina commencer dem ci hôpital xool nit ku ne soo nekk foofu mhm. bu feebar yi su fekkee ne ñoo amul doole mhm. nga commencé dimbale ñoom mhm. dina baax parce que soo def lu ne soo def si sa àdduna soo dee yàlla dina la fay soo def lu bon yàlla dina la fay soo def lu baax yàlla dina la fay et encore maa ngi gis ci internet yi mi commencé génne ay guinéen ay malien parce que xam ban problème mo nekk foofu ñoom nee na il que kër yi ñoom dafa nekk ñuy commencé indi ay violence mm-hmm. bon dama muguñ wax autorité yi mm-hmm. soo bugg génne nit mm-hmm. nga xool ko fan danga bugg ko yóbbu soo ko génne ci benn kër nga yóbbu ko feneen mais soo génne nit bàyyi ko ci mbedd ah, soo moytu ñoom ci boppam dina nekk vagabond wala ñoom ci boppam dina nekk agresseur essayen comprendre ba léegi maa ngi ñaan yàlla yàlla indi jàmm parce que sénégalais mi ngi yaa ngi dégg sénégalais mi gi fu ne mhm. parce que soo génnee benn benn mbooloo mhm. ci sa dëkk soo mboytu si ñoom tam dafa répété ñoom mhm. foofu dina indi ay yeneen coow dëkk yëpp dina am problème mais ba léegi maa ngi ñaan yàlla rek yàlla indi jàmm Sénégal allahumma amin incha allah macha allah Maïssa Mboup wax yàlla message bi am na solo wax dëgg yàlla ku dégg li nga waxit xam ni waxi jullit piir nga wax waxi taalibe macha allah rabbi yàlla na yàlla euh, fay la yiw waaye itam ñoo ngi ñaan bu baax a baax message bi yàlla na yàlla sama borom defal ñu ci dégg defal ñu ci ak topp ba kenn ku ci nekk mën cee jëriñu kon message la bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla mooy yéen ñi nga xam autorité yi bàyyi leen xel doomi jàmbur yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir kaso bi bàyyi leen xel yi tamit ñi nga xamante ni tam ñi ngi tëdd ci lalu hôpital yi te néew kattan wala néew doole pour ngir mën a faju mu bàyyi leen xel dem seet leen taxawu leen dana ci am solo lool ndax njiit dafay mën njiit te njiit du toppante te njiit tamit mag ñi dañuy faral di wax ni dafay bëri lu muy jéggale tey jéllale macha allah kon son excellence ñu ngi ñaan nga bàyyi xel sa njaboot nga xam ne mooy askan wi nga xamante ni ñoom nga jiite boobu ba tey ji wax dëgg yàlla te ñëpp wax dëgg yàlla bëgg la ndax li nga taxaw ci réew mi macha allah bi kon ñu ngi ñaan nga taxaw leen dool leen a taxaw seeti ñi nekk ci kaso bi ñu lijjën seen i dossier ndax ñu mën faa waaye itam seet ñi nga xamante ni tam wax dëgg yàlla Euh, ña nga tëdd ci lalu hôpitaux yi tamit euh, wax dëgg yàlla euh, sama borom ñaanal leen ñu fa sama borom fëgg seen bopp ba mu ba ñu mën a delluwaat ci seen yitte sant ko bu baax a baax gërëm ko bu baax a baax moom Serigne Maysa Mboup xanaa bu doon te ni deux bambara ñu yónnee ko suñu yaay ana fële ca ak mbokk ya fa nekk yëpp macha allah rabbi door a yëg tëj jotaay bi. ok Ansu mais Malien bɛɛ lajɛlen fo. a denkɛ n'aw balimakɛ Ala ye n garijɛgɛ bɛn ma n ye sénégalais ye n Ala fo k'a barikada hali bi halisa ɲini Ala fɛ Ala ka Mali basigi Ala ka Mali jugu yarabi Ala k'u malo an minnu sigilen bɛ k'an ka jamana lakana Ala k'a fanga d'u Ala k'a se d'u k'a ɲini masa rahamani fɛ Ala ka to janfa la maa minnu b'a ɲini fɛ u fɛ ka janfa ta k'u Ala k'u An y'an ka jamana kalifa Ala la Ala min tɛ kalifa tiɲɛ se t'an ye se Ala ye Ala de bɛ gundo dogolen dɔn Ala de b'a bangenen dɔn yarabi an y'an ka jamana ta an y'a kalifa Alahu subahana wataala la Ala k'an sutura Ala k'an lakana ka ɲini masa rahamani fɛ yarabi o n'a bɛ Mali la an y'a ta an y'a di Ala ma Ala de bɛ se k'a ɲɛnabɔ Ala k'a ɲɛnabɔ an k'a ɲini an bɛnbasuw fɛ olu ka wuli k'u jɔ an ka ɲini an ka fɛ olu ka wuli k'u jɔ an ye ka ɲini an ka fɛ olu ka wuli k'u jɔ an ye an foli bɛ Buye yɔrɔ an foli bɛ Sɛki yɔrɔ an foli bɛ Alisa Ayidara yɔrɔ yarabi an ka ɲini olu maaba ɲumanw fɛ u ka wuli k'u jɔ an ye u ka duwawu kɛ an jamana ye Ala kana an jamanaw to jugu bolo Ala kana jugu s'an Ala k'an ka tradition yarabi an Ala k'a ɲuman Ala ka a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la an ka président jamana kɔ kan ka taa bɛnkan ye an y'a ɲini ala subana waatala fɛ ala k'a se d'an ala k'a fanga d'an ala kana to janfa ala kana to tɔɔrɔ ala kana to namara la o cɛ muso o muso i bɛ fɛ ka juguya ta k'an ka jamana in sɛgɛrɛ n'o ye mali ye yarabi an ala k'i to a dingɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ ni fanga b'i ala k'i ka fanga ban ni nafolo de b'i bolo ala k'i ka nafolo ban ni tɔgɔ de b'i ala k'i ka tɔgɔ tunu ni hakili de b'i ala ka fa don i la an y'a ɲini ala fɛ an y'an kalifa mi bɛ mansa cɛman ni mansa musomanw fo ka dugawu kɛ n balimaw ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ daje inshallah rabbi ci suñu beneen jotaay xam-xam ak seen émission bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro ci biir Salam Vision jërë ngeen jëf wasalaam ci barkeb Sayxi yàlla dolli noo ay maqaama yàlla bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla woo bismil ilaay barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla woo